alhamdulillahi jalla min qaa'il yaa ayyuha alladina aamanu laa tattaxidu bitaanatan min duunikum laa ya'luunakum xabaala wadduu maa anittum qad badati albagdaau min afwaahihim wa maa tuxfi suduuruhum akbaru qad bayyannaa lakum al aayaati in kuntum taaqiluun wa salaatuhu wa salaamuhu ala majmaci suunihi wa xaqiqati kunhi sirrihi sayidina wa mawlaana muhammadin bahjati kawnihi wa diyaa'ihi wa ala aalihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi alazim mbokki jullit yu tedd yi nekk ci gox yu fasantikoo yi ci réew mi ak ci bitim réew tànn leerak jamono di ko leerloo muy rajo télévision bu wal fajiri maa ngi del siwaat ci kartanal yàlla di sof ak yow rek li ma sosoon ak yow démb ci heure bi ma dëxaloon la ko ci fukkeeli yaa ay waxa ak ñeent ci alquran mu yaay wala sina amun laa tattaxisu bitaana tan yàlla mayaat nañu kartan kaat ci sañ-sañam ak ci ngëneelam dañu bokk waa di yeewu bokk julli fajar bokk julli suba mu mel ni yaa ayyuha jile dafa lëkkalikoo yaa ayyuha ja ko féete woon gannaaw ji mu waxoon na ne yaa ayyuha alladina amanu in tutiixu fariqan min utul kitaab bu ngeen toppee kuréel ci ñi nga xam ne jox neen leen i téere muy yahut ak nasaraan nga xam ne duñ leen duñ gërëm mukk li ngeen ne lu dul ngeen a baxi li ngeen ne fekk si leen su boobaa nag ngeen mujj yàqule ñoo lañ la ñu yàllay tere ne bu leen ci jàpp xaritab biir ab jullit warta am xaritab biir ci ku dul jullit bitaana mooy sa xaritab biir boo xam ne lu xendu ci yow fanaan ci moom lu fanaan ci moom xendu ci yow koo bokkul ak pas-pas boo ko ko defee rek yàqule koo xamee na nii mi ngi lay feeñal ak bëgg te bu sañoon nga dee bu sañoon nga torox bu sañoon nga yàq bu sañoon nga yàqule soo ko hubbilee sa bopp ba mu xam sa lépp yoon woowu nga hubbil ko lay jaaree ba toroxal la yàlla nee na nag mun koo yàggee ba yahuud yeeg nasaraan yi bëgg leen ki ngeen bëgg moom lañ bëggut moo tax yéen bañuwu leen mais yéen ñoom dañoo bañ ki ngeen bëgg moo tax ku ko bëgg rekk bañ nañ la su boobaa nag bu leen leen jàppee xarit ak biir ndax ñoom duñu gàttañ lu mukk ci wax ci jëf lu leen yàqal yéejuhu nañ ngeen nekk ci xat-xat te maa ngi leen di xamal ne ak mbañeel ma ngay feeñ ci seen gémmañ ya te waat naa ci yàlla ne lañ nëbb ci seen dënn yi mënuñ koo feeñal moo ëpp moo tax mu ne yaa ayyuhal lazina aamanu yéen ñi gëm yàlla laa tattaxisoo bu leen jàpp bitaanatan xaritab biir min doonikum ko ci kudul yéen xaritab biir daal lu xendu ci yow fanaan ci moom def leen ko muy ab julit comme yéen mu rasulullah na maahu ashiddaau ala alkufaari ruhamaau baynahum loolu la leen sant ndax ñooña kat di ay yëwat ak nasaraan ak i musrikuuna yi laa yaluunakum duñ gàttal ñu leen xabaalan ci yàq fuñ mën a ñu ngi wax lu leen yàqal di dox lu leen yàqal waddu maa anittum ngéejuhu nañ seen ak xat ngéejuhu nañ ngeen tàbbi ci ay jafe-jafe te maa ngi leen di xamal ne xadd badatil baxdaaw min afwaayihim maanaam ak mbañal aka ak noonil ma ngay génn ci seen làmmeñ yi ñi leen di saaga di leen xas di leen tëggali dëggi sërëx di wax lu bon di ko teg seen der yi waaye maa ngi leen di maa ne fii su tuxfi suduuruhum akbaru lañ nëbb ci seen dënn yi moo gën a garaaw foofu lañ wax lañ wax. kon xam na koo xam ne lim la nëbbal billaahi bu la ko feeñalaloon dootoo ko nuyooti xolam bi yëpp ma ngay tëgg tama pour nga dee pour nga torox pour nga nekk ci xat-xat waaye bu dajeeg yow reexal la wax wax ju rafet fekk melaw gaynde la de gaynde de balaa bañam yaa feeñ rek. mu mer waaye tamit fekk bëri na ku lay reexal bañ ye leer naññ weex waaye fekk la ko lal moo gën a moo gën a xonq deret la nekk ca xol ba moo gën a ñuul këriñ pour muy tamu héene la ko yàlla nee na xamu leen li xew man maa xam li xew man mi xam li xew maa ngi leen koy xamal pour bëgg ngeen moytu xad bada xad badatil baxdaau xad badatil baxdaau min afwaayihim waaye nag wa maa fii su fi suduurum akbaru man nag li ma xamoon wax naa leen ko xadd bayat naa lakkumul ayaati in kuntum taqiluna man li ma xamoon wax naa leen ko li leen lëndëmoon leeraloon naa leen ko pour bëgg ngeen tegu ci am xel ba man leen a moytu ha antum ulaayi tuhibbunahum waaye ñoom wala yuhibbunakum yéen ñii nekk fi tey laa wax nag di ay jullit nekk fii ci Madina yéen a ngi bëgg yahood yi ngeen nekkal foofu di banu Qurayza ak banu Nadir banu lixyaan waa xaybar yi waaye ñoom walaa yuhibunakum bëgguñ leen de lu tax lii lii tekki ne yéen leen bëgg waaye bëgguñ leen wa tuminuuna bil kitaabi kullihi yéen a ngi nii gëm ngeen téere yépp di ko dëggal waaye ñoom nag gëm nañ seen téere ba di tawreet weddi seen téere bi di alquran gëm nañ seen téere ba di linjiil weddi seen téere bi di alquran ñoom ñaar ñëpp ñu bokk sotloo ci weddi leen te nag li ma gën a métti wa iza laqookum qaalu amanna bu ñu dajeeg yéen ne ñun de gëm nañ comme yéen waaye wa ida xalaw addu alaykum al anamila min al xayfi bu ñu leen wanee gannaaw rek da ngay matt seen baaraam yooyu wucciwu ni yelal nañ trop qul muutu bi xayfikum waaye man yàlla maa ngi leen di wax ne dee leen ak seen mer mënul leen jullit ñi dara inna laa alim bi saati sudur man yàlla maa xam li ci jëmmi dënn yi mais yéen xamu leen li xew dañ leen a bañ a bañ ba lu ngeen am ci teraanga lum tuuti tuuti yokku seen naqar xam na ki nit ñoo xam ne bu teraanga yokkoo say mbañal yokk bu sa teraanga yokkoo seen naqar ci seen xol yokk moo tax mu jël baatam matsu mooy lu ngeen mos ki teraanga mu tuuti tuuti rek xatal na leen in tamsaskum xasanatun tasuhum maanaam bu lu ngeen mos ki teraanga lu leen teraanga lu mu tuuti tuuti seen lu mu tuuti tuuti ñoom xeebuñu ko rëy na ca ñoom mu naqari leen waaye xoolal mu jël baatam asaaba ne wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha musiba nag lu leen ci dal lu mu rëy rëy ñoom xeet nañ ko ñoom daal bu ñu sañoon ngeen xëy yéen ñëpp dee bu ñu sañoon yahuud yi yéen ñii di jullit ngeen xëy yéen ñëpp torox ñi maasale leen wallahi su boobaa nag yafrahu biha ñi bëggee ko waaye maa ngi leen xamal ne wa in tasbiru wa tattaqu laa yadurkum kayduhum shay'an wallahi bu ngeen boolee muñ ak ragal ma man yàlla def samay santaane bàyyi samay tere mënaluñ leen dara seen pexe yuñ mën a pexe yëpp dama koy këpp ci seen puttox gi ñu torop la maam xalifa ñaanoon wa kayduhu wa kaydahu ruddahu fi nahrihi wa bihi sarit wa sayruhu marma sama samani loolu arab sax mënu ko wax loolu kenn mënu koo firi ci xolof mu ne wa kaydahu ruddahu pexeem yépp laa wax delloo ko ko ci pottaxam gi moom kuy pexe lu bon jëmee ko ci man mu jël ko muy sànneekuwaayu setti jamono ku ku yëkkati eh, musiba mu yëkkati ko jamonoom rek daanu ci kawam kon wa kaydahu ruddahu fi nahrihi wa bihi sharit wa sayruhu marma ashu min zamani loolu araab yi sax mënuñ koo wax waaye tamit yàlla nee na su ngeen boolee ragal ma ak muñ tuus lañ leen mën kon gis nga muñ mooy ngànnaayal julit ragal yàlla mooy ngànnaayal julit ñaari ngànnaay yi ku ko ngànnaayoo ku la songu torox foo toll yaa ngi muñ foo toll yaa ngi ragal yàlla di jëf santaane bàyyi tera ya lu noon ya bëri bëri da nga ca mucc ku la xëyal ñu gont ci kawam maa la ko wax wa in tasbiru wa tattaqu laa yadrukum kayduhum shay'an inna allaha bima ya'maluna muhiitun ala imran aaya cent vingt foofu la daanu kon nag aaya ji nga yàlla baax moo bëgg jullit ñi balee ni xamal seeni noon moo bëgg jullit ñi ba leen jàngal nu ñu war a moytoo seeni noon te noon bi gën a bon lañu yàlla xamal mooy noonu biir noon boo xam ne boo tegee añ bi mu bokk ak yow bool bi bu tàngee sax mu hupp boo tisoolee mu na la yarxamukallaa fekk yarxamukallaa jooju la làmmiñ wi wax waaye fekk na xol baa ngay wax xaatalakallaa yàlla yàlla ray la ku mel noonaa gën a naqaree dëkk yàlla nag nee na yéen jullit ñi rawatina yéen ñi nekk ma mun madinatul munawara noonu biir la leen yàlla nattoo te mooy yahood yi jaxasoog yéen léegi léegi bu ngeen dem xare yi téye ngànnaay ne dañ leen di dimbale su ngeen xamee bëj ñi jooyle leen ko su ngeen a xamee naqar ñi ñëw dar seen bopp yi waaye fekk dañoo ànd ak yéen ci lu feeñ waaye li nëbbu dañ leen a kontur di wax wax ju bon ju jëmee ci yenn bu ñu leen wanee gannaaw rekk wax lu bon ci yéen loolu mu ngi mel ni suñ penc mi la wàcc ak bari bëri na ku lay tagg bu la wanee gannaaw xas la bëri na ku lay feeñal mbëggeel fekk na xolam ba yow la gën a bañ ci kaw suuf mën naa xam defoo ko dara waxoo ko dara waaye ni la yàlla melal moo ko neexut nit koo xam ne nag ne la yàlla melal moo ko neexut jafe-jafe dikkal na ko de ndax li gën a tàng safara mooy xol bu bañ ku yàlla baaxal sa xol bile bu la yàlla nattoo mu bañ ko yàlla baaxal ba ba ngay dee sa xol dootul seddati mukk da ca nekk ci dee ci tàngooru xol ba dee yàlla boole sa jëmmu jëg sa xol bi dugal leen ci fu gën a tàng muy muy naaru jahannama yàlla na yàlla musal mu ci kon nag aaya jàngoog aaya yu mel ni moom ci alquran bëri na wan ñu ni ñu xéeféer yi bañee ak ni ñu yahood yeeg nasaraan yi bañee aayaat yu mel nii yàlla dañu ci xee ci suñ nooni biir yi dafa bëri bokk na ci wala yazaaluuna yuqaatiluunakum xatta yarudduukum an diinikum ci sartaab ini sataaw yahuut ak nasaraan duñ dañ di xeex ak yéen feek ngeen di baxee seen diina ji fekk leen ndeem mën nañ ko suñ ko manee dañ ko def bokk na ci walan tarda anka al yahuudu walla nasaara xatta tattabia millatahum yahuut ak nasaraan daal wallahi duñ gërëm duñ nangu mbaax gu nekk ci yéen feeg bàyyiwu leen ne dem fekk leen kon nag nañ ci bàyyi xel ay noonu biir a garaaw la yaaram ba waxoon inna al afaa'iya wa in laanat malaamisuha inda taqallubi fa fi anyaabiha al atabu saxir ba nee na jaani ñàngoor bu yaramam wa nooyee ba tax nga laxasoo ko mbaa nga laal ko bu wëlbatikoo rek da nga yëg ne bu la màttee ay bëñam ya alkande rek moom la moom la ëmb kon nag nit ki ñëw nooyal ci sa kanam wax wax ju daw yaram waaye fekk na bu la wanee gannaaw rek musiba la nañ ci bàyyi xel nit ku nekk dafa war a xam boppam soo xamee sa bopp rek man ngaa mucc ci lu bëree bëree bëree bari yàlla nag du dañ mukk di xamal jullit ñi seen bopp ngir bëgg rekk ñi xam jàmm moo tax mu ne ha antum ulaahi tuhibbunahum yéen ñi nekk fi da leen a bëgg de waaye maa ngi leen a xamal ne wala yuhibbunakum ñoom bëgguñ leen li ci du koy firndeel gëmal ngeen leen te ñoom gëmaluñ leen dara nangu ngeen mbaax seen yonantu bi mu yonantu yàlla Muusa nangu mbaax seen téere ba muy tawreet waaye ñoom nanguwuñ dara lu baax ci yéen du seen ab yonent du seen ab téere kon nag bàyyi leen seen xel bu baax ci ñoom ngeen xeex ñoom te bàyyi leen xel am na geneen laay ju muy wax ne wa ida laquukum qaalu amanna wa ida xalaw addu alaykum al anamila min al xayfi ci laaya ji buñ leen wanee gannaaw rek buñ dajee yéen rek ne ñun dee ñun ak yéen a bokk ñoo bokk làng li ngeen gëm lañ gëm ki ngeen gëm lañ gëm bu ñu wanee gannaaw ñu ngay matt seen baaraam ya waaye poli baaraam ya la kenn mu majaas la ngir rek tatak mer jëmee ko ci yéen waaye yàlla ne xul mutu bi xëy si kum ngeen xeboo ngeen dee dara ngeen mën a lub jullit ñi kon nag yàlla ngoog xeeñu xee goo xam ne ku ci xeewu xam jàmm ku ci xeewu dootoo dañati mukk ci ak xeewu dootoo nelawati te nag li gën a bon mooy noon ab biir ak xàndandoor bu bon ku ko yàlla nattoo coono dikkal na la rawatina xàndandoor bu bon boo manta mucc mën naa dem ba soppi la mbaa mu yàqal la yonentu yàlla Muusaa li muy baax baax ba mu xàndeek nitam ñu bon ñooña yóbboo na leen ngël ngël ma ne goo xam ne ñeent fukki at comme ab yonentoob lëmm moo mënta mucc ci xànd ku baax xànd ak ku bon ba mu xàndeeg moom terewut ngël ma dëgga maanaam ak mbugal ma wàcc ci kawam lu man ñeent fukki xat ñu nekk ci ak ngël ma ne benn digg rek la dox lu ko ko yóbboo xànd ak ku bon la yàlla waxoon ba ñëwee na dem leen ngeen xeexi yi ah, ñu ne ko ñun daal badhab anta wa rabbuka fa qaatila inna huna qaa'iduna ñun daal boo xeboo nga xam sa mag ji wala nga dem xeexi sa borom nekk sa ndimbal waaye ñun demuñ fenn li mujj ñeen fukki at ñi gëlëm waaye bañ a àndeeg Moussa mooma àndoon ak ñoom mujj coono booba dal ko ca ca ngëlmane ga ak coono ba mu nekk ca désert ba ba magam ja Haaruna ca la mujj génn àdduna kon loo baax baax baax boo xandeek ku bon rek yarab yàlla ba bu ñëwee di dal ci kawam fokk maanaam bu la yar ba dalut tamit car ya dalaale la man maa la ko wax loolu moo dal Moussa Haaruna ci nitam ñu bon ne waaye loo bon bon bon bon boo àndee ku baax bu xéewal ga ñëwee nga ànd ca waaye moo tax ñoom tamit lañuy bon bon ba ñu àndee mu baax mii ak Haaruna ci la ñu xamee xéewal ak mannu ak salwaa bët bu set ñeent fukki at genn borom kër du joxe dépense te bët bu set yàpp ak boisson la ñuy dépensé muy mannu wa salwaa loolu lépp fu ñu ko jëlee xéewal ak ànd ak ku baax. kon ku ànd ak ku baax tamit lu mu xam nga xam ca waaye ku ànd ak ku bon lu ko dal dal la ca de moo tax bi ne almaru waa ala diini xalilihi yonentooy wax fal yanzur ahadukum man yu xaalil nit ku nekk dafay nekk ca diinay xaritam na kenn ku ci nekk seet ka muy xaritoog la bopp abu daawud moo ko solo mu bokk ci xadiisu abi hurayra ya yonent bi waxaat ci xadis boo xam ne abi Moussa al Ashari yu mu ne maa ko dégg ci yonent bi mu ne inna masalul jëliisi assaalixi wal jëliisu assuu ka xaamilil miski wa naafiqil kiiri fa xaamilul miski imma an yuxdika wa imma an tabtaa minhu wa imma an tajida minhu riixan tayibatan wa naafiqul kiiri imma an yuxriqa siyaabaka wa imma an tajida minhu riixan xabiisatan kenn du yonent bi ci mën a jàngale mu ne maanaam xàndandoor bu baax mi ngi mel ni ku toog ak kuy jaay parfum borom parfum bu neex misk géeg ya ca xaju sanfaraan beeg ya ca xaju ku ko yor nga toog ak moom benn mu may la ca xet ga mu laay mu raayal la ca parfon ba ñu ne ko raayal ma wala mu jaay la ca wala bu la jaay raayalul la mënu ca dara far force xet ga xeeñ la mënul la ko tere moom kay ku toog ak jaaykat ab parfum ñett yi foog nga xam ci benn benn mu jaay la wala mu laalal la wala xet gi bon ni jëm ci yow yonent bi ne àndandoor ak nit ku baax nii la mel bu lay wàll mbaax sax doo ko yëg waaye mu ne àndandoor ak nit ku bon mi ngi mel ni walkat boobu di wal safara ya di hupp damaa bañ a jaar ci seen tur ya ndax tam métier rekk la te kenn gënul leen muy huppkat bi tabaarakallaahu ah, di di wal ah, ñu gën koo xam ci suñu làng yi ak tëgg tëgg yooya di def di nit ñu baax ñoo xam ne métier moomu ñu métier wu métier mu baax la yonentu yàlla Daawuda moo doon métier am mu njëkk di ràbbu koŋ di taal safara di tëgg ay mbubbi koŋ di tëgg ay ngànnaay tëgg yëpp yonentu yàlla daawuda mooy seen maam kon ku leen xeeb ñoom xeebuwuñ dañoo méccoo méccoo ab yonentu su ko defee yonentu bi nee na boo toogee am na ne àndandoor àndandoor bu bon mi ngi mel ni ku toog a xuppukat booba saa yoo toogee moom ñaar doo nga lay xaar mu ne benn ala kulli haal safara wa fet tax lakk say rëy wala tàngooru safara wa xënj la dara nga ca mënut kon nag àndandoor bu bon bu lay wàll mbon sax doo ko yëg moo tax mu jàngale ko ci ñaari façon njàngil yile àndandoor bu baax bi jaaykatab gëtt muy parfon àndandoor bu bon bi maanaam mu nirale ko xuppkat ba ngir safara wa waaye du wut jëmmi métier ma baax na dara nekkut ca waaye tàngooru safara wala xëñ ji ak ferñeent ya moo tax mu tudd loola waaye duhul xeeboog métier ma ak mbon nga déedéet moo tax yaaram ba ne anil mar'i laa taf'al wasal an qarinihi fa kullu qarinin bil muqarini yaqtadi mu ne wallaahi bu laajati nit ki mooy kan laajal rek nit ku nekk nu xaritam mel ñaareel mu mel ko te jamono jii nit ñu bari la seen xarit man ci ñoom seen baay mënu ko ci nit ñu bari li seen xarit yi man ci ñoom seen yaay mënu ko ci ba bu leen sax seen yaay ak seen bàyyi dañu mujj di leen kalaame ci seen xar yi ne ah waxal ci sa waa ji de ak a bëy su ko defee nag mu ne kon nit ku nekk xaritam rek lay niru kon nag aaya yaa ngoog di tegtale daal ku bëgg ku baax demal xuti ku baax nga ànd ak ñoom su boobaa yàlla mën na la caa dimbale waaye jël ku dul jullit def ko muy sa xarit ngay ànd ak moom su ko lëggee lu ko dal dal la laa tajidu qawman yuminuuna billahi wal yawmil axiri yuwaadduuna man xaada allaha wa rasulahu walaw kaanu abaahum aw abnaahum aw ixwaanahum aw ashiratuhum ulaayika kataba fi qulubihim al imaana wa ayadahum bi ruuxin minhu mujaadala aaya 22 aaya jooju nag mu ne koo xam ne da doo fekk ku gëm yàlla gëm bis bu mujj ba xolam bi mu cay fat ku bëggul yàlla bëggul yonantu bi doonte le ñooña seeni baay lañ wallaahi bu ñu weddee yàlla ñi tàggoog ñoom yóbbal doonte seeni doom lañ bu ñu weddee yàlla ñi tàggoog ñoom yóbbal donte le seeni gaño la ñoo bokk ak benn gaño buñ tàggoo bu ñu weddee yàlla ñu tàggoog ñoom yóbbal donte le seeni mbokk lañ bu ñu weddee yàlla ñu tàggoog ñoom yóbbal te loolu mooy jullit pire kooy xàndoog xàndool moom ci yàlla bu fa yàlla neexatul dagg ko doonte sa doom la mbaa muy sa baay mbaa muy sa xarit mbaa muy sa àndandoor Abdullahi ibnu Abdullahi ibnu Ubay ibnu Salul dafa toog ci yonantu bi naan fa ndox fa shariba annabiyu maa an yonantu bi naan ndox fa qaala lahu billahi ya rasulallah maa abuqayta min sharabika fadlatan yow de desaloo ci sa ndox mi ngi doon naan ndesit loo xam ne man danaa ko mën a naan wala ma mën koo nàndal sama baay man naa xam li konoon xolam ba yàlla mën na koo laabal maa ab xayta min sharabika fadlatan usqiha abi laallallaha yutahiru biha qalbahu ah fa afdala lahu fa ataahu biha yenentu bi naanaat desal ko mu yóbbul ko baayam fa qaala lahu abuhu abdallah ma haata baayam ne ko ndox mi nga may indil mooy lan mu ne ko haada faddalatu nabi sallallahu alayhi wa sallam min sharabihi ndesetu yonantu bi la ci naanam dikkal naa la ko pour bëgg nga naan ko yàlla laabal sa xol bi xéexée ndaw ku ñaaw làmmeñ xam nga li ko bàyyi ja waxam fa hal laa jiita nii bi bawli ummika fa innahu atharu minha fa qadiba wa jaa ila annabi wa qala ya rasulallah ma aznab lii fii qatli abi fa qala annabi déedéet bu ko def maanaam ba ko nit ku bon boo ko yéenee mbaax sax du tax mu am ko wax ji dafa ñaawa ñaawa ñaaw ba songee sama xol ah ba mu ko andi leen def sa tujonam tubi ci ndox pour ne na ko naan mën naa xam yàlla jaare ca laabal xolam bi ndax dafa bon ku bon la moo doon kilifa ak naafiqi ca Madina bam ku ko indilee nag mu ne ko lii lan la mu ne ko ndesetu ndox yonentu mu doon naan la ma bëgg nga naan ko sa xol bi laab mu ne ko mënoon nga ma indil tuuru ndoxu sa yaay sa yaay mooma lu mu tuur ndox nga indil ma ko moo gën a laab lii nga indil ma pour ma koy naan waaja mer doom ji mer lool ñëw ci yonantu bi ne ko tey de xam naa lu ma naqari lool ci kàddu gu ñaaw gi ma déggee ci sama baay dama bëggoon nga jox ma ndigal ma ray ko yonantu bi ne ko déeréet bal turafiq bihi wa tuxsinu ilayhi demal nga jàppandal rafetal jëmee ci moom sa baay la kenn du yonantu bi koo xam ne taxaw nga ku taxaw saaga sa kilifa nga xam doole mën a fayu doomam taxaw bëgg laa fayul ma ne ko xàq njureel jee tax demal nga xormaal sa baay te nga rafetal jëmee ci moom li may fonk fonk may sa kilifa di sa yonantu mu saaga ma man mën naa koo muñ bu tax nga jël mer moomu bëgg koo faj ci sa baay te yonantu wee tax moo bëgg ñu xormaal suñ baay yi moo bëgg ñu xormaal suñ kilifa yi nga xam ne nit ki xamul ku gën rey baayam ci moom kii li muy bon bon li baayam di bon bon taxut yonantu bi jox ko ndigal ne ko demal nga rey sa baay déedéet dafa noppi rek abubakar siddiq ibnu jarir mooy nettali mu ne wax nañu ma ne aba quxaafa mooy bàyyi abubakar siddiq bàyyam dëgg mooy aba quxaafa dafa saaga yonantu bi saaga wu ñaaw abubakar pes ko ana aba quxaafa sabba nabiya sallallahu alayhi wa sallam fa sakkahu abubakar siddiq ibnahu سكة فسقط منها على وجهه ثم أتى النبي فذكر ذلك له فقال أو فعلته mu ne ko waaw waaw mu ne ko laa ta'ud ilayhi wallazi ba'athaka bilhaqqi nabiyyan law kaana sayfu qariban la qataltuhu héehée ba baayam saagaa yonantu bi mu pes baayam ba baayam daanu sëpp xar-xaram ba ah mu dikkal yonantu bi wax ko ko yonantu bi ne ko ah waaye yaa ko def bu ko defati bu ko ko defati mukk mu ne ko yonantu mooy sama baay jur waaye kàddu yim la wax waat naa ci yàlla su ma sama jaas yi jege woon ma ray ko dama la koy wax léegi na nga dégg ko kenn du Aboubacar ci bëgg yonantu bi munu ko muñee kat waaye gis nga ko ba baayam waxee wax ji waxuwul mu def ko jëf ju jëfawut bam demee yonantu ne ko bu ko defati bu ca dellooti abu ubayda ubaydatu bnu jaraax mu ne dafa ba aaya ja wàccee laa tajidu qawman yuminuuna billahi wal yawmi al axiri yuwaadduuna man haadda allaha wa rasulahu dafa rey baayam moo tax abu ubayda moom moom walaw kaanu abaahum ndax bi aaya ji wàccee moom moo rey baayam kañ la rey baayam yowmal uxud keroog xare uxud la rey baayam ñu ne déedéet xare badar la ko rey badar ji nag moo gën a wér jaraax yatasadda li abi ubayda wa aba ubayda yaxiidu anhu fa lamma aksara qasada ilayhi aba ubayda fa qatalahu abu ubayda nag doona ko muñ di ko moytu su départ rek bàyyi ji ñëw traversé ko mu moytu ko mu continuer di ko traversé mu mujj ko ray ko kon moom moom walaw kaanu abaawum keroog la rey bàyyam ba mu yëgee na fa noonu yonantu bi kañ keroog xareeb Uhud ñii ne xareeb Badar la gën a wér xareeb Badar ci la ko rey kon moom moom walaw kaanu abaahum aw abnaahum nag mi ngi mel ni Aboubacar Siddiq dafa woowoon doomam ja ne ko nañ léewoo keroog xareeb Badar yonantu bi ne ko xéexée yow Aboubacar matti'naa bi nafsika yaa Ababakar amma taalamu annaka indi bi mansilati sam'i wal basari keroog bi aaya ji wàccee walaw kaana abaahum aw walaw Aboubacar dafa waxoon doomam ki ne ko yow xéeféer bu bon nga ñëwal ñu xeex ci xare Badar ñëwal ñu songoo léegi ma def la lu bon yonantu bi Aboubacar ku seer la ci moom mu xam ne góor gi fi mu toll léegi ci néew kartan bàyyi doom jee ko xëpp kartan mu ñëw ne Aboubacar sa bakkan dafa seer ci ñun bu léewoo ak sa doom ji yow ni nga mel ci man mi ngi mel ni sama nopp yi ak sama bët yi ni mel ci man saxee ci man noonu nga saxee ci sama xol ci man bul xeex ak sa doom bàyyi ko aw ixwaanuhum nag mooy Mus'ab ibnu Umayri Mus'ab ibnu Umayri dafa rey tabaarakallaahu ma muy Ubayd ibnu Umayri keroog Badar la ko Mus'ab ibnu Umayri rey kon moom moom aw ixwaanuhum aw asiratuhum nag mooy Umar ibnu Xattaab keroog xareeb Uhud te xa maanaam Badar la rey nijaayam nijaayam ji bokk yaayam ndey ak baay muy Haas ibnu Hisaam ibnu Mughira keroog xare Badar la ko. naa Omar rey rey nijaayam carrément ku mooy aw asiratuhum waaye tamit Ali ibnu Abi Talib ak xamsatu ñoom ñaar ñoo rey Utbatu ak Saybatu ak Walid keroog xare Badar te ñoom ñii ñoo bokk benn fan ñoom ñëpp ci Bani Quraysh lañ bokk ndax ñoom ñaar ñoo léewoo Ali ñoo génn ci làng jullit ñi ak Hamsatu Utbatu Saybatu génn ci làng xéeféer yi Ali rey Utba waaye tamit Hamsatu rey Saybatu su ko defee nag Ubayd ibnu Jaraax male kam doon léewoog ñi gaañante ñoom ñaar ngi ñëw xàq ko ray ko kon jullit piir ku dul jullit noonam la war a doon donte baayam la waaye nag du tere dana xormaal ci diggante ba ku dul jullit sa noon la donte sa yaay la waaye nanga nga xormaal xàq njuréel ga loolu yonentu la waxoon saadu foo fekk alquran wa wasayna al insaana bi waalidayhi rek saadoo ko taxawaat ci wàcc te mu bëri lool ci alquran yaay jaakoxoo ba mu ñëw ne ko yàlla yonantu mi boo ko weddiwut dootuma lekk dootuma naan dootuma duggati ci ker dootuma duggati néeg ba dee mu tontu yaay ja wax ju ñaaw ne ko yaay boo xamoon téeméeri bakkan bakkan ya di dee par benn ba jeex tàkk du tax ma weddi yonantu bi soo xeboo ba nga lekkati boo xeboo ba nga naanati wax jooju naqar yàlla lool donte la yaayam bañ na yàlla bañ yonantu bi yàlla ne woo saynal insaan bi wàll waalidayhi ibnu hamalatu ummuhu nangam am na umna hamalatu ummuhu kërhan wa wadaxatuhu kërhan wa hamluhu fisaaluhu salaatuna sëhran loola lépp maa koy wax ne ko fi sa taqoog yow ba fi mu teqalikoog yow fanweeri weer la ñaar fukki juróom juróom benn weer yëpp dafa laa ëmb mooy li gën a tuuti ci ëmbu ñaar fukki weer yaak ñeent yëpp dafa laa nàmpal mooy li gën a bëri ci nàmpal dugal wal na yurdi'na awlaadahunna hawlayni kaamilayni liman araada an yutimma radaa kon dafa boole la gën a bari ci nàmpal boole ko la gën a néew ci ëmb moo lay jox wa hamluhu wa fisaaluhu salaasuna shahran di fanweeri weer kon nag sa baay nu mën a mel xormaal ko waaye nag doo ko topp ci lim bëgg nag bay weddi yàlla de wa tabi sabila man anaaba ilaya wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa bihi fa laa tuti'uhumaa loolu la alquran wax de kon nag gaa yaa ngóog di saxabaa yonantu beeg seen ngëm gaa yaa ngóog ak seen ak dëggu gaa yaa ngóog ak seen ak sellal yaa ayyuha jooju loolu lay jàngale muy yaa ayyuha llaziina taqullaaha haqqa tuqaati xam na ci gaa yi yàlla yoo xam ne duhuñu ay yonantu duhuñu malaaka mais ñu ngay dund maqaama booba di topp yàlla faw duñ ko moy mukk di sant yàlla faw duñ ko weddi mukk waaye tamit di tudd yàlla faw duñ ko fàtte benn jamono yàlla nañu yàlla boole ca xaaj booba ñu dund ko tabaarakallaahu dee ci dékk ci yàlla boole may ñu mujj gu rafet mujj gu rafet nag nekkul deexin wuñ duhul deexin wu rafet de gaa yu bari dañuy jaawale mujj gu rafet ak deexin wu rafet nit ki mën naa dee deexin wu rafet fekk xam na mujj gu ñaaw nit ki mën naa dee deexin wu ñaaw fekk xam na mujj gu rafet mujj gu rafet pire mooy booy dee rek fekk na sa xol bi mi ngi aju ci yàlla waaye saa yoo deexee ak noo mën a deexee donte sa kawlal bi nga deexee te jamono ji ngay dee sa xol bi mi ngi ajuhu ci sa njaboot mbaa xol bi aju ci sa alal mbaa sa xol bi ajuhu ci noonoo kenn mbaa mu ajuhu ci say tool mbaa mu ajuhu ci ponatam àdduna sañ sa deega ñaaw na ndax jamono ji ngay dee amuloo connexion mooy connecté huloo waaye nag donte da nga tali bi oto bi ñëw ramassé la ba sa yuur ga ñu koy tas di ko tasaaroo mënuñ laa jullee ndax mënuñ laa for waaye jamono jooja yaa ngay jàng salaatu na bii yaa ngi wax laa ilaha illallah wallahi fekk sa xol baa ngi am connexion aju ci yàlla lu sa dee ga ñaaw ñaaw xam nga mujj gu rafet kon yàlla bu mu jël suñ bakkan yi mukk lu dul jamono jooja suñu xol ya ma nga ajuhu ci yàlla ñu am connexion bu doy sëkk boo xam ne baar ba dara manqué wut ca waaye léeg-léeg tamit connexion yi manqué de waaye gi ne ah baal ma de man de benn baar laa am am na ci gëm yàlla de am na koo xam ne dana dem ba dese benn baar ci gëm yàlla. kii ne déedéet man deseetuma benn baar moom kay mi kuy xamaj kii ne man ñaari baar kii ne ñett laa dese kii ne ñeent kii ne moom am naa connexion bu doy sëkk dara manqué wut boo xam ne su ma branché woon amul tamit dara lu mën a dollee ko foofu la imaamu Aliyu tolloon bëgg naa yàlla. sopp ko topp ko bëgg goo xam ne wallaahi bu ma xuñuloon mbir yëpp ma jàkkaarloog moom du tax dara doo dolleeku ci man sa portable bi yow mi may déglu boo ko sarcee ba mu fees boo ko dugalaatee ci courant bi ci prise bi tamit benn du tëb waaye foo fekk maa ngay muy tëb batterie ba feesul waaye lu lu lu fees dal kon yëngatu gi yëpp kërti kërti geeg bëgg a bëri tiitar geeg wane gu yëpp sori yàlla rek waaye yàlla ku ko jege jokk ci moom dal comme ni batterie bu fees du xamatul tëppati xamatul bajantu xamatul yëngatu dal rek waaye yëngatu gee kërti kërti gi yëpp dara waralu ko lu dul ñàkk fees rek mag ñi daan wax ne bërigo bu feesee doo dégg yëngu ya waaye bërigo goo dégg xëtëng xëtëng ya coow la lay bëgg a jariñ coow la bëri dafa feesul rek kon yàlla ñu yàlla feesal ci boppam ci barkeb Sayyiduna xam xir ñu ci boppam jokkuñu ci boppam may ñu cofeel ak sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam xam naa bu suba ci waxtu wi nag ci kartanal yàlla boo ma toppee ma dugg ak yow ci fukkeelu yaa ayyuha ak juróom yi ne ci alquran ma ngay wax ak lekkatu riba ya ci yaa ayyuha alladina amanu laa taakulu riba adaafan mudaafatan wattaqullaha laallakum tuflihuna wattaqu naara allati uidat lil kafirina wa atiu llaha wa rasula laallakum turhamuna ala imran aya 132 boo ma toppee suba mooy nekk suñu bopp darsu yal na yàlla yóbbuñu ca defal ñu tawfiq ak taysiir defal ñu naataangeeg barke kër ñu ci boppam wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. muy asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. di